joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem law lu yow Fallilo Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef ay gi na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fallo yaay rasulullaay jam nga fa Makka fam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li am nga ngeen li yàlla hubbu fam nga ngeen li Bàmba hamdulaay sariyatu haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou ab xalifa di alaaji salaamaaleykum wa rahmatullah leen di nuyu di leen ziar kër bàjjen moom niñ koy dundee nii rek màggal gi dafa ñëw yokk ko waaye moom nii la dëkkee berne rek ànd ak taalube yi lu taalube yi nekk rek mi ngi ci luñ nekku nekku ci di ñu teg ci yoonu baax di ñu tere ñu digal lu baax di ñu tere lu bon fu mu toll rek ñun ñëpp dañoo tegaat yoonu siraatal mustaqim te ku ko xam ne mooy soxna bu Bousso ndax kenn du fi ñëw nag ba gis ko mu dundeen beneen dundeen wu dul yoonu maamam wi rek dañ koy ñaanoon nag Mbàkke Bàll mu yàgg fi lool te wér ñu yàgg ànd ak moom di ñaanal soxna maam Marie Mbusa mi nga xam ne mooy doomam nekk ci kër gi doon jawri ni kër gi ah jiite ñu nag jiite suñu daayira ma faatihul bisri bi nga xam ni lu nekk la ñuy def balaay mu ànd ko ñun bu sa baali na yàgg sax sant nag ñëpp rek kontaan lañ def ah kooku moom mooy lépp balaay sa mooy suñu xol mooy suñu deret mooy suñu lépp moom dañ koy liggéeyal ba fekki ko rek yàlla na yeex moom rek lañ bëgg suñu xol nag jëndewuñ ko ak dara mooy suñ lépp sopp sañ faal. jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a topp ci 24actu point com ba léegi rek ci màggal gi nga xam ne moom la ñu amal màggaluk Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke nekk fii kër euh, soxna maam Mati Mbacke euh, di kenn ci njaboot gi waaye ñu taxaw ak euh, jenn jëwriñ xam naa dañu koy bàyyi mu nuyoo ak ñi ñuy topp bu ko defee ñu ànd ak moom ci waxtaan bi sang bi tur bi Maxtaar Ñas as ndongo su xeebu su nekk ci kër gi. Mm-hmm. di donga yi donga yëpp ah, yàlla dogal ñu koy tudd ci boppu jëwriñ yi kon ñu di leen di nuyu di leen siyaare di ñaan seen tele bi bokk ci télé yi doomu aadama yi gën a siiwar ah, ci àdduna ba suñu borom yeggale leen fu ngeen bëgg a yegg ci barkeb sëñ Fallu ah, li ñuy wax ci sëñ Fallu na du bari ku ne xam na ne li fi xew ñaari at yi waaye sëñ Fallu daa doon koo xam ne ku dem mu dem ku demul mu dem moom daa jaayoon ak njuréelam jënde ko taalibe nit ñi ñoo ko soppal seen bopp ñëwal seen bopp defuñu communiqué woote de defuñu dara lii bu ñu woote woon dana raw lii ku ne xam ne ni fii ku fi masaan ñëw da neneen lay mel ni rut nii waaye sëñ Fallu moom la nit ñuy sopp ba soo na woon ku ñëw sax boo fi ñëwee da nga fi jële jàngoro wala da nga faatu wala def na ñu jaral sëñ Fallu jaral na leen ko ndax loolu duñ ko gëm boo leen waxoon duñ ko gëm ñoom mm-hmm. nit ñi sëñ Fallu lañ gëm sëñ Fallu daa def ci nit ñi mm-hmm. nit ñi di ko jéem a njukkal mm-hmm. nun nag mënu koo fay kenn ku ko mën a fay amut tey nun kër soxna maam mati dañuy dollee sant sëñ Fallu di sañse ñu ñëpp nag dañuy sañse ndax tamit li tax ñu bëgg a sañse dañoo bëgg a yokk ku bëgg a yokk da ngay jéem dox waaw kon noo ngi sant soxna maam mari mii nga xam ne tey fi noonu moom mooy doom ci soxna si njaboot yëpp topp ci gannaawam ànd ak moom ak soxna Binta Ndaw meeg soxna ñëpp ci kër gi ñu ngi leen di nuyu ak euh, doomi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal ci kàttanu suñu borom yal nañ ko yàgg teewe ay màggal yoo xam ne ba liggéey boo delsee mm-hmm. da nga xanaa gii du màggal ga ma fekkoon waañ waa nga fee nit ñaa ngi fi nag fi noonu yi bul yaakaar ni lii doo ngay nit ñi mm-hmm. fépp biir kër gi yëpp nit ñaa ngi fi waaw fii si fee ñàkk wuy si mm-hmm. jëmmi soxna ma mënti ji ñëw ku dikk fi moom mhm. danga koy jéem a fay mhm. waaye mënoo koo fay ndax kenn ku nekk li mu def ci yow yow mënoo koo fay mhm. waaw kenn ku nekk li mu def ci yow mënoo koo fay da koy jéem a njukkal rek waaye yàlla na ko yàlla aar yal na ko yàlla wéral yàlla na ko yàlla guddal aw fanam nu ànd ak moom dem te lii nga xam ne tudd nañ ko mm. du ma mm. ba duutuñu ko déggati amiin ci barkeb sëñ Fallu amiin am na solo jërëjëf euh, xam ne ñoo nekk fii di kër soxna Maam Mati Mbàkke ci bis beeg ni ñu koy dundalee incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa équipe bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziar soxna Maam Mati Mbàkke Fàllilu di ko ñaanal gudd fan te lool te xam naa ne lu mu gudd fan doyut te heure bu geesoo yàlla na yem ci ñun ñuy kontaan lool nag ci ni mu ñu jàppee ak ni mu ñu suuxate ak ni mu ñu teetee ci biir kër sëñ Fallou bañ ñeme ndax fu euh, fuñ toll ñi ngi ñuy ñeme lool lool lool sax xam naa ne duñ sonn duñ tàyyi heure boo lu mu bëgg rek ñi ngi ciy daw guddeeg bëccëg suba ngoon dañuy bernde. dañuy togg ba togg laax bisaab ñun nag ñoo feete féetewoo nii mbanay laax bisaab yi nga xam ne nii incha allah dañuy ñaan gudd fan ak wér di ñaanal Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xam ne moom mooy suñu soppe mooy sunu wasila ñuy ñaan yàlla yokk leeram taas ñu ci barke bi jaay nabi Moustapha ñi ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ziare soxna Mamati mbàkke mu Serigne Fallou ñi ngi nii ci waañam bi dara manqué wul Mbacke nit ku baax nit ku lislaami Mbacke yàlla na fi yàgg ci wér. yàlla na fi yàgg ci wér ceebu jën baa ngi nii waaw ci waañu soxna maam Mati Mbaak mu Sëriñ Fàllu michu yaa ngi nii ginaar yi ibbil ko ginaar yaa ngi nii dara jeexu fi Mbàkke gis nga nii lay màggale waa waajuram bi nii lépp ci sëñ Fàllu bi lépp ci sëñ Fàllu rek yàlla na fi yàgg ca wér doom ji soxna maam Marim bu sa yàlla na fi yàgg ca wér yaatu nga def ba mat xam nga xéwal yi bari na yaatu na lépp doy na waaw ñun ñu ko jox daal dinañ ko togg nu mu neexee jox ko gan yi loolu la soxna si bëgg ne nañ ko def nu mu neexee jox ko yi ñu xewlu waaw loolu mooy seen sant na leen baax gërëm na leen waañ baa ngi nii dara manqué wul lépp mën na incha allah waaw fii ba guddi daal ñu ngi ci waañ bi di togg jox jaamu yàlla yi ñu lekk ndax noonu la ko soxna si bëggee jër ngeen jëf. comme ni leen ko waxoon ñu ngi fii kër euh, soxna maam Mati Mbacke euh, di kenn ci njabootuk Serigne Fallou gi xam ngeen ne bés bi ni ñu koy waajalee euh, soxna si mën ngaa dellusiwaat ci bés bi ni ngeen koy waajalee fii ak liggéey bi. ah xanaa sant yàlla rek julli ci yonent bi nga xam ne moom sëñ Fallou moom ay mbiram moom moo ni mel wax dëgg yàlla kontaan nañu lool di ñaanal nag suñu bàjjen bii di soxna Mamati mu sëñ Fallou yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam a kanam waaw yërëm nañu jàppale nañu taxawu nañu bàjjen boo xasee ba agsi day mel ne moom daal yéeme ne daal moom daal wax dëgg yàlla am naa fekke wuñ jamono yi sëñ de waaye moom wax dëgg yàlla mel na ne eh, fekkee jamono jamonoy suñu Fallu moom daal moom mooy suñu mooy suñu Sëñ moom waaw ñu ngi koy ñaanal na gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi mu yàgg a màggal lool nag bàyyi ko Cheikhou Khadim bàyyi ko Sëñ nañ lool. am na nag. man Ami Bousso laa ñu ngi ci liggéey bi di ci jàpp sant yàlla bu baax nag bi ñu yàlla boolee eh, soxna maam ak soxna maam Marème ndax ñun day suñu rakk baay. ndax xam nga ne waajur moom dafa foor ci nit mu nekk am caat nag di royuwaay nag ñu di ci sant yàlla bu baax a baax nag ci taxawaay bi ndax nag moom bu fekkee dañu seere dañu dëkkandoo yaa ko mën a wax waaye ñun ñoo mën a seere ci soxna Maam ndax lekkut bàyyi ñu lekkut bàyyi dara bàyyi daray kër gi képp koo xam ne sëñ Bousso Elimane moom bokk nga ci moom rek mën ngaa ci soxna Maam ndax ba léegi mu ngi mel ne jëmm ji moom la moo fi nekk ba tey rek te soxna Maam Mati itam yàqu ci dara di waajur woo xam ne ni ku bëgg ay njabootam la di ñu topp di ñu jàppale di nemmeeku dañu woo di yaatal lool ci kër gi nag day daal ñu ci sant yàlla daal ñaan suñu borom fekkloo ko njaboot njariñu njaboot gi ndax bàjjen moom day ku baax koo xam ne mën nañ cee seere lu bëree bëree dañoo yor ay daayira dëkk ci koñ bi euh, di di ñëw di ànd ak moom liggéey bi di sant yàlla te xam sëñ Fallou moom lépp lu ci waaye def rek moom du soobee yàlla dootoo ko réccu daal soxna si nag moom day roy boo xam ne comme soxna ma soxna jaara bu sa rek togg jàkk joxe séddale toog ci suuf jaamu yàlla loolu rek mooy ab liggéeyam waaw ku waay la nag boo xam ne nii moom ñu bëri ba dañ sant yàlla daal ci bokk ak moom dara sàkkaane bi ñu ko yàlla andilee ci suñu ëttum maam bii nag dañuy sant bu baax nag di leen sant yéen waa télé bi di yàlla fekk ko ay at at at sant bu baax rek nag sant rek nag suñu fàllu moom neex na moom ñu ngi ci am kontaante bu baax di sant euh, soxna maam Mati bu baax macha allah taxawaayam rafet na lool waaw taxawaayam rafet na ci kër gi kër gi daal moo fi suñum suñ faalu xam naa ne moom bis bu suñ faalu dellu si waatoon du defaraat toogaayam kontaan nañ ci moom bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi te wér yàgg jiite njaboot gi ci barki Serigne Touba ñu yàgg topp ci ginnaawam ñu koo fekk ci barki Cheikh Mamadou Fadal di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fa ànd ak wér waaye di ko ñaanal soxna Mamadou Mbacké moom suñ faalu mu yàgg fa ànd ak wér ni nga ko waxee dëgg la jëwri ñoo ngi fi ci waañ wi rawatina ñun ñi fi ci wàllum kafe gi café gi nag comme saa su ne ko daan defee ndax démb si ngoon la ñuy tàmbali café gi ndax soxna Mamadou Mbacke li yitteem mooy képp ku teew si bés bi su fekkee heure lekk jot ñu jox la nga lekk bu dee heure lekk jotut li fi nekk ci ay café ak xeetu yu sedd ñu la nga xewlu ci ndax li yéene mooy képp dugg si kër bala ngaa génn nga loo jëfandikoo moo waral ñun nag café gi ñu féete démb léegi ñu ngi ci ne saa bu ñu seggee café dañuy segg daal di koy réservé daal di seggaat dañuy bëgg café gi tout le temps muy fekkande duñ bëgg rek ñu ne café gi jeex na euh, dañoo segg ba mu pare ñu suukar fa teg ko ne di seggaat léegi suukar dañ koy xelli bala moo jeex liñ segg pare su nga xam ne dañ koy ensonné ba ba guddi gi bu dee jamono yi nga xam ne da daan fanaan daan daan ensonné presque 24 heures ñu ko daan def segg café waaye comme jamono bi ak situation bi ni mu demee nga xam ne si ba presque moom affaire ngoon gi la ak guddi gi ñu doon nii dañuy segg café ba guddi suñu reeree daal di dem ñaanalante ba déwén incha allah kon noonu la ñuy doxalee café gi euh, ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax baax man nag man la wax wax siiru Dieng di njiitul daayira soppee Serigne Fallou Touba Oumoul Khoura ginnaaw bi nga xamee ne rafet nañ kàddu yi nga xam ne euh, suñu jëwriñ yi nga xam ne moom lañ délégué woon fii muy Serigne Gora wax na ko muy ci li aju ci wàllum liggéey bi yëpp rek muy bernde li nga xam ne moom mooy màggal Serigne Fallou daa boole yu baree baree bari ndax boole na ay ngëneel boole na it li nga xam ne moom mooy jàng alquran ak euh, jàng xasida ak di bernde daanaka noonu la ñu xamee woon màggal ki nga xam ne nag moom la ñu àndal muy soxna ti moom Serigne Fallou moom li nga xam ne moom moo di yéeneem képp koo xam ne dugg na ci kër gi moo xam daf doon takk benn waxtu la wala benn benn benn minute rek na fi barkeelu moo xam lu tàng la wala lu sedd. ngir lan ngir xiiwal yi nga xam ne am na ci bis bi loolu nag euh, liñ koy sante suñu boroom mooy euh, ni nga xam ne moom la way juróom wa defoon muy Serigne Fallou nam waxe woon ne euh, yaa ayyuha sayqu nafisul muftaja yaa fatihan ma kaana xab la murtaja bientu bun watee bil irada lakkum li kay ahza bi xarqin aada nga xam ne moom dafa jëlan ak njureelam jënde ko ak taal bi nga xam ne koo jaayan lépp jënde ko ak taalibe waaye yemu ca nag dafa wax ne min baadi mastaraytumuha minni ahday ahdaytuha lakum bi xayri manni ginnaaw bi nga xam ne nag nangu nga ko ba jënd ko ba noppi njëg googee defaat naa ko addiya nga xam ne kon lool day feeñal solos li nga xam ne mooy addiya ci li nga xam ne moom mooy ab taalibe di solos addiya ci li nga xam ne moom mooy eh, yoon wi ndax yoon wi kat eh, dafa boole ñaar muy ñaq ak ñuqi nga xam ne nga xam da sëriñ bi ca euh, sa doole di ko liggéeyal itam ci sa euh, alal kon loolu mooy li nga xam ne moom mooy euh, cosaanu li nga xam ne moom mooy liggéey bi tey moom nu andi fii di ñaan nag képp koo xam ne teew na fi yàlla na ko suñ borom defal xéewal yoo xam ne dana dana dana saawaan baawaan adduna ak àllaaxira ndax comme ni ko sëriñ bi ñaane woon ne xat fakka kabula xat ba sa fadula fadur wala wa naf mu jaahi loolu dem na xéewali baawaan ñoo ngi leen di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com ni ñu leen ko waxee woon boobaak léegi rek di ànd ak yéen euh, tey ji nag ci bisub euh, màggalu Kazu bi ngir ànd ak euh, ñenn ci njabootuk Serigne Fallou mbake gi xam ngeen ne tey ji ñi ngi fi ci kër soxna Maam Mati Mbacké Euh, di kenn ci njaboot gi euh, di jàmbaar lool di ko nu xam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy liggéey waaye euh, topp tànk Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacké ba xam ngeen ne bis bi bu jotee mu koy dundal fii ci këram gi nekkee ci marché Ocass waaye taxawaay googu tax na ñi ngi ak ñenn ci jëwri yi bu ko defee rek dañ leen di ànd ak ñoom ñu xool liggéey beek tolluwaay gi sëriñ bi waat dañu lay ziar ñu bàyyi la nga nuyoog ñu lay topp ci 24actu point com. asalaamaaleykum 24 axes moo ngi leen di nuyu te di leen siyaar te di sant te di leen gërëm fii ci kër soxna maam Mati Mbacke moom Serigne Falilou kër Baye Serigne Bousso Yilimaan noo ngi ñaan sama borom yàggalal nu ko fo dolli ko wér aar ko aar njabootam aar ku ko xam ak ku mu xam ak jullit yëpp def jàmm ci réew mépp mépp mépp mépp noo ngi koy ñaan ci daraja Cheikh Fallou daraja yonent bi nga xam ne tey nii. sallallahu alayhi moom la suñ fàllu bi mu ne yaay def ni cëpp te mu mate ko lool ndax suñ fàllu moom yërmande ji yonentu ba am buñ te jotiwul jot ci suñ fàllu day doy sëkk xéewal ndax noonu foofu la nu jotee noo ngi ñaan sunu borom doole noo taxaw nu doole def màggal gi nii mu ko borom bëggee nii ñu nu ko diggali nii la nu def noo ngi ci sunu biir kër ka kese yem ci kepp jàng alxuraan jàng xasaayid berndente ni sëriñ bi wax fas nañ yéene it lu mu ci boolewut duñu ko ci boole ci kaw jub laa ray ba fii xuddan joojee alxuraan di wax jubluwu ca dara lu baqar ak minal jinnati wa naasi diggante bi lépp jub rek la ci soxla kon nag ku jub noppal nga leen yal na nu yàlla saxal ci jub sàmman sëñ Muntaxa sàmman sëñ Abo xamal maam Mati ak mbokk taalibe yi jullit yëpp ñëpp noo ngi sant noo gërëm noo ki biir kër gi màggal fas yéene yem ci képp ci liñ nu digal jërëjëf jërëjëf euh, ci kàddu yu am solo yooyu waaye ñi ngi toog ak euh, a Ndiaye ndaanaan di ku ñu xam lool waaye Gora tey dañ laa fekk ci kër goo xam ne miin nga ko lool euh, muy kër soxna maam Mati Mbacke di jàmbaar goo xam ne liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy amal waaye ku ne soxna maam Mati Mbacke rek sa xel de Cheikh Mamadou Fadal Mbacke tey de ñëw nga foo miin Alaaji Gora Ndiaye ndaanaan waaw fii nga ñëw tey pàkk bi di kër Soxna Maam Bade Mbàkke Falilu dama la wax ni la lii nga fi gis at bi du nuguleet mbaar mi du nuguleet waaye magi taalib yi wër du nuguleet Soxna Maam mati noor ak newat muy taw ak muy sewat muy tàng ak muy sedd waxtu ne berne nii mi def nii kër gi kër gi këru berne la min ko boo déggee këru berne bu la neexee naa bind ci table bi ci buntu kër bi ni këru berne gaa ngi ne berne alxuraan ji basang yaa ngi nii basang alxuraan pàkk bee ku am amulum jàpp ku jàngul alxuraan jàngoo xasida doo fa toog waaw doo ko doon kon fa tarakalaaw dina ñaan yàlla mbàkka fu nam yàlla gudd lool te wér di beral nag siyaar na soxna maam Marème Bousso bale ma sama ak seex yàlla fu yàlla bàyyi wéram ci dara yi sëriñ bi daa mel ni waxtu dafa nuyoo muy waxtu tisbaar moo tax xamaa li bëgg na julli lépp xaju jotaay bi ndaagul gëlëm xaju ci waañ waaye daal li coole bare kër nag na gaa ngi nii sëñ Fall nag moo tax maay Sénégal mooy Sénégal dëkk bi fees na dal mbedd yi remban na ñëpp wuy si nañu ku wuy si kan maam mi sama maam rem kenn du Serigne Fallou Mbacké Cheikh Fallilo maamam Serif la Serifun bun Serifun Serifun tuuma jublu la Serigne du xotti du tas du daw ku koy laaj ku laaj mu may la nga giijal Seex Fallu xaliyu la ana Muhammadul Muxtaaru man maa la ko way Sëriñ Falilo ana Muhammadul Muxtaaru maa la ko way yow seexu naal fallu yaa moom yëf yi may ma ci laa ka Seex Fallu xeewali walwali bool wale tee na ngeen way seexun al fudala mooy faddulun hasimun sarifun farisun fasilun mbakkeeg mbusoo bela mbakkeeg mbusoo bela mbakkeeg ta mooy wasila sëriñ fallu mbakkeeg mbusoo bela ku sopp sëriñ fallu defal niinu màggal ko mbakkeeg mbusoo bela Mbàkke musoo bela ki mooy njiite mooy wasila lor dem na xéewali baawaan dootul jeex abadan ku sopp Sëriñ Fallu ku sopp Sëriñ Fallu ku sopp Sëriñ Fallu ku sopp Serigne Fallou xeewal war la lor dëddu la day laa manata Cheikh fi abadin xayri laa manata Cheikh Fallou sey laa manata fi abadin xayri laa manata tànnee la loo borom nguur gi gaaw ko def ni yaay ki ju bokk waa ahlu diwaan ya seen mbooloo la sir bayti wilayati yaa yor baytil wilayati yaa yor baytil wilayati yaa yor fondu mang ba bu wér a wér sërif nga yaa jiite mboolem ku ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com ba léegi ñu nekk soxna fii ci kër soxna Mame Maty euh, Mbacke di kenn ci njabootu ko Cheikh Mouhamadoul euh, Fadal Mbacke gi euh, waaye tam xam ngeen ne turando yi am na daanaka boobaak léegi mat nañu ab lim ñoom itam taxaw temm rek ngir liggéeyal soxna si ci yoon wi nga xam ne moom la leen teg ñi ngi soxna Mame Maty Ndiaye soxna si mu mel ni nga dellusiwaat ci li nga xam ne rek moom moo di kuréel gi ak jubluwaay bi lan la salaamaaleykum maa ngi leen nuyu kenn ku ne ak sa tur ak sa sant di soññ nag turandoo bàjjen yi ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi buñ sañoon daal turandoo bàjjen yëpp chaque àjjuma ñuy tase fii di farlu si liggéey bi waaw te ñun ñëpp ñëw di teew di teewlu di teg te buñ sañoon ñun ñëpp xamante te te na fi ñëpp ñëw ñu daje fi joxe numéro yi ñu bokk ñu ñëpp doon benn. 145 82 32 boobu mooy numéro bi maam maamati maamati loo moo yor bi léegi ku lii rek moom ngay woo. mu mu dugal la si groupe bi ndax ñu xamante ñun ñëpp. voilà jërëjëf kon mu nekkoon euh, soxna maam Mati Ndiaye euh, fii euh, ci turandoo soxna maam Mati Mbacke yi di kenn ci njabootu Cheikh Mamadou Lamine Cheikh Mamadou Fadal Mbacke gi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne boobaak léegi ñi ngi koy amal waaye ngir gën a boole ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di turandoo yi lépp rek ngir liggéey bu am solo waaye yoon wi nga xam ne tamit soxna si teg na leen ci muy yoon wu baax ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi topp ci 24actu point com jërë ngeen jëf ba beneen jërë ngeen jëf